ci sëriñ Basiiru Baara ak rakkam sëriñ modaay sa Mbàkke ñu tegal ñu nuyoo boobu ci loxol Cheikh Sidi Mokhtar xalif général des mourides ak mboolem njabootu sëriñ Touba gépp ak mboolem jullit yépp ñu di leen nuyu nag ci mboolem taalibe yi aju sëriñ Touba ji ci jiital taalibe yi Cheikh Momadou leen Baara di leen nuyu ci mboolem cheikh Serigne Touba yi yi ci jiital cheikh yi nga xam ñoo aju ci kër cheikh Mamadou Lamine Bara di nuyu daayira yëpp ak jullit yi nga xamante ne ñëw nañ ci màggal gi te bokkuñ ci daayira nu nuyu leen buy baax a baax di leen nuyu nag ci tur allaaj Ibrahima Seck mi nga xam ne bi nu ganagul àdduna ba léegi moom lañ fi fekkoon mu ne dann sax Cheikh Mamadou Lamine mu jóge fi mu ne dan sëñ du Baara sëriñ Abdou sëriñ Abdoulaye Sëñ Mbàkke ba ci Cheikh di Muxtaar tey muy sëriñ Touba di sëriñ Baara ba tey léeg te kéegul axalaxa saayam mi ngi nuyoo di sant di gërëm di ñaan fu ab taalibe jóge ci àdduna bi yépp ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay ñaanal Muhammadul Moustapha noo ngi lay nuyu di nuyu sa rak sëriñ Cheikh Coro mi nga xam ne moom ngeen fab liggéey bi teg ko ci loxoom mu àndam ay magam ak rakkam nuy sant bu baax di la ñaanal di la gërëm ndax Mouhamadul Moustapha ku xam yoonu sëriñ Touba wi wala nga di jullit te xam na ameel na la cant ameel na la ngërëm ameel na la ñaan ndax nag mënoon ngaa mel neneen ci doxin wala waxin waaye wàccee nga sa bopp ba képp ku ñëw nuyu la boo ko fayee rek xelam sodd sedd ndax accueillir ba nga koy accueillir kon yal yàlla bàyyi la fi yow ak say bay jur ak say rak ak say bopp ak bokki sëriñ Touba yëpp amel nañ cant bu baax taalibe yi kër gi yëpp amel nañ la ngërëm amel nañ la ñaan ngir sa jikko ngir nag jikko rek mooy li am solo ci doomu aadama ndax alayhi salaatu bi koy sunu borom bi gërëm gërëmu ko ci juddu bi da ko judd gërëm rek ci ko wa innaka laalaa xuluqin asim kon Mbàkke yal na yàlla bàyyi la fi sëriñ Seex a jëf am nga yar am nga teggin am nga dal ndax nit bu amee dal lépp loo xam ne rëcc na ko mën na koo dabawaat ba xam kon nag yal na yàlla gën laa delloo dimbali ndax ku neex àndal nga ndax ku teey nga kon sunu xol seddal guy nu di la xamal ne sëriñ Moustapha mbooleem seexis yi ci kër gi di njaboot sëriñ ñaan Diop sëriñ Moustapha Diop ne fa njabootu sëriñ Ousmane Diop sunu wayjur sëriñ Bachirou ak njaboot sëriñ Abdou Guèye xawlu ak sëriñ Ba Amar ak mbooleem seex yi mënee su leen lim ñoom ñëpp àndandoo nañ am cant ak i ngërëm di fam nuyoo bi ak siyaar bi di ko teg ci nga tegal ko ci sa loxoy wayjur sëriñ Bachirou mu àggale ko ba ci. sa wayjur wa Cheikh Sidi Mokhtar taalibe itam di daayira yi fu ab daayira nekk ci Sénégal ak bitim réew sëriñ bi sant na la gërëm na la gis na sa jëf gis na sa coona ba tax na mi ngi leen di sant mu ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal mi ngi sàkku ngeen ñaanal ko baax a baax a baax fu ab daayira nekk Sénégal gis na la sant nañ daayira yi yépp di santit bokk yi ak soppe yi nga xamante ne ajuwuñ ci daayira ajuwuñu ci association ak ñu ci lenn dañoo sopp Cheikh Mamadou Lamine am fi ay wëllëre fu nekk waay bàyyi ko fa ñëw ci bisu Cheikh Mamadou Lamine Bara ngir xéewal yi fi rot ni ko sëñ bi yéenee nit yéene ñëpp loola tax ñoom ñëpp ñu bàyyi seen i yitte ñëw sëriñ Mouhamadul Moustapha wax naa la ko léegi njaboot sëriñ Mansour si Jamil xaritu sëriñ bi di doomam yebal na fi délégation ñi ngi lay nuyu di la sant sëriñ moo wax Mbaaxe Gay yebal na fi ab taawam sëriñ Mama Gaye yebal na fi taawam ñu ñëw am yoo ñëwuñ caw siyaaral ñu ngi lay sant bu baax a baax seex yi nga xam ne ñoo jóg ci àll àll bi yëpp dañ leen di tënkare ak mu xaddam yi yemale ko sëriñ Abdou Manaan sëy jóge na kër Modou Laye Sey ànd ak mboolem seex yi taalibe ñëw di la nuyu nu di la xamal le nag alhaji Fall ak mboolem ñi koy jàppale jóge nañu dakaar ñëw ñi ngi lay nuyu sëriñ Moustapha te di la ñaanal te di la sant te gërëm seen xel dal nag njiit lu mat jiit ga ndax mënoon ngaa mele nee na jooy say wagg ne saa bàyyi xalifa général waaye defoo loolu ku ñëw ci yow dana yaraat boppam ngir sa meloog sa jikko lu waaye sëgër sëgër ba agsi bu la xoolee ne la jàkk dana wàccaat ngir sa jikko kon yal na yàlla bàyyi la fa nun de suñ xel dal na ndax yaatal nga ci boole nga ci ñëpp yal na yàlla guddal fan bi ci des nag moo di maa ngi nuyu sama bokki Louga ndax nag Mbàkke Kajoor région Louga la nekk te nun noo ci Louga commune nekk doo ko département kon Moubarak di gouverneur bi préfet su préfet yéen laay jaarale ci ci sama nuyoo ci yéen ak cantuk taalibe yi nga jàlle leen ko monsieur le ministre yi fi nekk yépp di nuyu Aminata Mbengue Ndiaye maire Louga ñëw na nekk ministre kon ameel nañ leen cant amee leen di gërëm noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp fu waay bàyyi ko woon ñëw li nga bëgg yaa ko xam yàlla yàlla defal la ko li nga ragal yaa ko xam yàlla yàlla dàqal ci ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi sant ñëpp di nuyu jëwriñu kër gi nag di Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké mooy jëwriñ gi kër Cheikh Moustapha kër kër Serigne benn kër rek la kon buñ tuddee Cheikh Mouhamadou Mokhtar tudd nañ waa Daaru Xuddoos yëpp tudd nañ yooru murid bépp kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ànd nañu Saliou Diagne mi ngi leen di nuyu bu baax Alaaji Jaaji wax na ko ak mboolem taalibe yi ngeen jéggal nu nag ndax ku lim fàtte wala nga bàyyi koo xam ne moom nga waroon jëkke yàlla fi yàlla dajale newen déwén déwén dàq ren su ko menee su ko namee yàlla melee rek ñu ñaanal nag Abdoulaye Wade mi nga xam ne yàlla dogal na mu jeexal yàlla yàlla dolli ko jàmm dolli ko xéewal di ñaan nag Alaaji Mbacke Sall mi nga xam ne moom la fi yàlla bàyyi andil nu ko fu xéewal yemoon yàlla na ko fa yàlla mu def mu tàmbali fa jëme ko kaw noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum